ay dootul naaw tiim leen te daaneelu ma ko ñu dem fa ragal mooy ndeyu koor naan ci koor toog ko fa toog fa sax daan toog fa ramadan kii mooy maam mi koor kii muy barax lu mi kii koor ca fin de koor ga nag am xibaar bu jóge màkk fekk si leen ba taxoon di kay waat di ñibbi si daa ji maa leen ne toppatoo naa ko ba xam xabaar ba lan la toppatoo naa ko ba xam dugg nag duggumul ñu ne lan la
shiddata shaqami ba weeru koor di wàcc ba weeru koor way dee la ñu wàcc saa wu ñëx wa naj nii daa waa ma dal na saa yi ba ko ma oo man taqu an alayn wa ila wayu yuha الموت شديد القوى غامرة فاستوى بقلها ثم دنا فتدلى فكان غاب قوسين او ادنى فليلتي ما ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارون على ما يرى ولقد برينا سلسلة أخرى عند سلسلة المنتهى عند جنة المأوى إشق الشجرة ما يخشى ما ذاق البصر ما تقى لقد رأي من آيات ربي الكبرى أفرأيتم اللعبة وعرضا وما ناتا الثالثة الأخرى لكم الذكر والأنس تلك إذا قسمة ضوي إن إلى أسمان سميتم أن تواباكم أن صلى بأن الشفاء آية بوبو dafa am xiila yu ci wax wax bu ñaaw ba dëj bi boobu àggoon xabsa ba gars yi di ñibbisi bi na bi continuer di jàng tar bi rek liñ ko dóoroon ñu dugal ko ci baagi ci asibatan labida laysa la min dooni lay kaafir dafa bi asalaati si taxajabuuna wa talxakuuna wala tabkuuna wa antum saamiduuna ay fasjudu lillahi waabudu suratu xalaq nabi dafa sujjóot xureesin gépp sujjóot tandoog moom dég-dég ba nag dem ne Makka d'accord nañoo ak nabi ba moo tax ñu dellu si ne dañuy ñibbisi
ay baat la ñu wax ne nabi daf ko ci sër xalaawee te bokk ci alquran baat ya nag si gilgaay yéefar yi ndax biñ tuddee seen yàlla yooyu laata allah nanaata te laata allahu la woon ñu asaf al saxeer gi def ci taayu taanis uzza xasis la woon ñu dindi racine gi wut ci yeneen ak manaata man naanu la woon ñu dindi nu noonu nga def ci taayu taanis ñu ne yonent bi muy jàng def ne afaraatum laata uzza wa manaata tilka alxalaaniq alula wa anna sabaxatuhunna la turja salisatuha alakum sukuruhunna ne loolu la jàngal te loolu su ko jàngee dafa approuvé yàlla yi xiran yi ne mën nañoo am njariñ ëllëg afaraatum laata وعلا وما نعتنا تلك القرانيق الأولى وأن سبعتهن لترجع ذلك شيء أنا لقي أول نجم داري لبجيخ moo tax misaal bi jeex ñu ne nabi tudd na sunu yàlla yi te d'accord na ne dinañu ramu ëllëg nabi su jot ñu su jot dëgg dëgg ba dem nag looloo indi gaa yi fekk du dëgg ba ñëwee bu jub dëkk ba am nañu bañ leen dogalee ne li ngeen fi bàyyi woon li ci li fi nekk gën a ko yées am nañu wàññeeku am nañu agsi sew sew ngi foofu bu bu bu sew bu sew ci siira gaa yi dañu wax ne Ousmane xeexul Badar te Ousmane ak Roqiyatu ci ñi gàddaay yoon dem Habsa la te xare ba la fekkul gaa yi ñibbisi te Ousmane yonentu bekk na toogal sa jabar dafa feebar laysa ala laxmi xaraj wala ala xaraj xaraj wala ala mardaxa ku feebar mbaa nga feebar la mbaa nga lafañ mbaa nga laggi sa ñàkk dem xeexi du la jural benn bàkkaar Ousmane takk na nabi na ko toogal sa jabar moo tax kër ba mu xuloo ba mu wax ak Talhat ibn Abdourahman Talhat na ko Ousmane kër gee sedd rek nga dima rek wax waaye yow ba mu tàngee ba tàng xam nga ma dañ daan ñaaxante toujours dañ daan ñaaxante toujours Sina Omar mus naa toog Aba Bikrin toog Rasulullah toog sida di bikri maa ngi sant yàlla musuma su jutul xëy na Omar mel ni ku ko mere ne waaye bàyyi leen bu ngeen toogee ci wetu waajur ne ngeen di ko wax lii démb rek la fi ñëw fii ku su ku su jutul xëy na amu fi. Ababacar nekk sama bàyyi bi ci kilifa yu yoroon xërëm yi ci la téye na ma it yóbbu ma ci pantre bi xërëm yi de mu joxoñ ma ko ne ma say yàllaa ngi màggal leen delloo bunt bi ma fab xeer na yàlla ji do di nga lekk tontuuma maa ko di nga naan tontuuma ma ne ko xeer bi ci yow laa ko jëme ah booye boobu mooy tundiku dérangé wul ma dóor ko mu toj dal ci morom mi mu toj sama papa dégg kër kër ji ñëw téye ma ci loxo yóbbu ma ci yaay ba ci ba ci sama yaay ne ko gisal sa waa ji li mu def yaay ji ree na ko bàyyi ko kii daal ka aatif ba doon wax ak man bi may matu kii la mu ne ko lan la mu ne ko dama dégg aatif mu ne doom dina juddu ci néeg bi tey mooy day jaraafi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy àndandoom ci ci ci ci ci ci reñaanga mooy wéttalam ca fañ koy tëral nee na bi mu ali nekkalee loolu ba àggal rasulullahi jibril ne cëpp ne nabi yàlla ne ababacar wax na dëgg toog nañuy fal benn waaye xëy na ah post poste bu amul ku fa ne mu ne nañ fa yebal diw omar nañ fa omar a jëkk a waxee nañ fa yebal diw ababacar wax mu ne ko yow gis naa bu ma waxee rek ngay wax di teg ci sama weti wax mu ne ko déedéet da nga am koo xam rek ma am ku ma xam waaye dara amu ci sida bi bikri siddiqi wax nañu ne ci fukki atam ak ñeent nabi am nay saaba lu jëkk mu juddu am nay saaba comme si Ahmad Tijaan mi am nay taaliba lu jëkk mu juddu rasulullah am nay saaba lu jëkk mu juddu te ba xam yow la diggante moom junne at la te tuub na ci moom waa ji ñuy nettali jotu ñoo gisoon te tuub na ci moom am na bu xëy ibnu Xadar tuub na ci moom ñaari junne at diggante mag rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam benn bés mu nekk di def commerce ca saab te da bëgg di génte weer daanu ci këram ko kër gi mu dem sàngoog weer bi ci benn mbag ji tiit laaj fan la firikati gént nekk ñu yebal ko ci génn góor mu dem wax ko gént ga góor gi nekk na nga tudd mu ne ko Abdul Kaxbati Ababacar nag Abdul Kaxbati la tudd mu ne ko foo dëkk mu ne ko Makka mu ne ko li la wax de bu dee dëgg seen dëkk yonent dina fa juddu yaay doon yaa- yaay doon jiraaxam si da bi bakar ñëw continuer commerçant ba ñibbi si Makka quinze ans vingt trente quarante cinquante six ans njool Makka nekk ci quarante ans parce que trois ans la ko magee trois ans la ko magee ak deux mois bu ñu dina bi takkee grade bi Ababacar sopp ko nag di ko fréquenter mais tuubul tuubul du toog ci wetam di ko faralu daan daan des na bi ne ko loolu tere dugg ci diina ji benn yoon Abi Bakri mu ne ko yonent dafa baaxoo di wane muhjisaat soo ma wonoon muhjisaat day ma tuub na bi ne ko ah yow yaay laaj muhjisaat gént gi nga géntoon mille neuf cent deux septembre doyu la mu ne ko ashadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashadu annaka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nabi daan na wax ne bu ñu fagoon liimaanu xeet yépp tekk ci balance der liimaani sidi abi bakrin ci balance peese ko liimaani sidi abi bakar daaneel daan na wax ne ñemeñetuma ko waxtaan dara ci àllaaxira ndax mu sooy soo ko mosaa soful ngelaw lu mel ni yàpp ñu lakkalee xasoo ngir xol bee doon tàkk ngir ragal boromam tabaraka wa taala si abi bakrin sidi xaaj Malik nee na min xisati naj mi ngir xisa ba xew ci suuratu naj mi abo ci la ñu retourné rajiina di way dellu ila la xaali jëm màkk waaye bañ demee la am la ñu foogoon amul luñ fa fekk fekk nañ fa shiddata soxami zaadu ziddata soxami mbañeel gayi fa bàyyi woon bu ko ëpp lañ fa fekk gu duubal googale moom lañ fa fekk ñu delluwaat nag ñii nag xës ak si stade dëkk bi delluwuñu Seydina Ousmane ci la bokk ñu gàddaay mu faf dem ma Medina toog fa ba looloo tax xare ba dal fekk ko fa ba ko tol ëttune yow Ousmane gën naa la ñu tiir mu ne ko mu ne ko bay atturu daal fekkee wo ko bagal xeexu la ko te it keroog Uhud ña dawoon ca la mën na ko wax nga dëgg de xëli uwut yi day ñëpp ko la woon ñu bari te yàlla baal na ko rëccër ci bu yàlla baalaate nag matatu la xaste bay autorisman bi ngay wax laqad radiallahu anil mu'minin si bàyyi ona ko maa ko waral njol màkka ñëw ba uday biya yónnee màkka ne damay ñëw pour màggal si néeg bi ñu ne ko doo fi dugg ci góor de xef mu boole armam yëpp teg ko ci genn ak benn gileem yónnee pour signaler ne ñëw màggal néeg bi rek ko indi ba nga sina Omar duma fi bëgg a yónni Omar ne ko duma dem neexuma deret te bariwu may bokk te saay saay lañu mën naa laa li yëpp mën naa laa digal koo xam ne ku mën a maslaha la te bari dafay bokk muy sina Ousmane mu yebal na mu dem gaa yi ne ko kaaba gaa ngi booy boo wër waaye sa waa ji du ko mos de sidaaji malik na wa yabba dunoo wa béyti nima waawaaw nima
سلما فيا لها لحجب القرآن ووضعه وثالث بالمصالح سلما فيا لها وثالث بالمصالح سلما فيا لها موضع لقد جمع القرآن ووضعه موضع مالك تجاسم يا جمالك ساكن عثمان الكريم المرتدى مود سيق المسايق من ضرباني سيد جمالك أسالس بالمقتول سلما فيا لها موضة لقد جمع القرآن وموضة لا موضة مالك خلق أمام الأمام أقوال خلق
Hadj bi ni si Seydi Hadji Malick def rasulullah yi sooy seet sax defe ne la mimi bi àggu ci bi mu demee bay bëgg a jeexal téere bi daf ne foog ma wàccee kaw gaa yu baax ya muy ñeenti saabaam yu baax ya Seydi Abubakar Omar Ousmane Aliyin mu xëcc Ababakar mu ñëw mu di ko yebbi ni gaal gu gaal gu koste ba mu set wecc mu bëmax ko xëcc Omar mu ñëw mu di ko yebbi di ko yebbi ba mu set wecc mu bëmax ko xëcc Ousmane mu ñëw di ko yebbi ba mu jeex mu bëmax ko xëcc Aliyin wàcc di ko nag Asan ak Useynu ak seen yaay téere bi jeex terminé téere bi ci saabaan ya daf ne maa ngay terminé téere yi ca gorom ya wala ku may jabar goro la lay wax ku ko may jabar saaba yi ñeent la ñaar ñi may nañu ne bi jabar ñaar ñi ne bi may leen jabar ñan ñaar la ne bi may jabar Ousmane ku mu ko may roqiyatu keroog ba mu faatoo ñu jóge Badar te ñu jëkk ñëw di wax si ne ñoo jël victoire dañu fekk ñuy rob no bi moom fekk nañu rob ba ñibbisi ndax ci ñi desoon ginnaaw la waaye yóbbu nañu juróom-ñaar ñu toroote ne na xel dal ca dëkk ba victoire bi jël nañ ko ñu ngi ñibbisi ñoo ñoo ngi fekk ñuy rob roqiya mais bi nabi agsi ndeysaan Ousmane sargal ko mu jaal ko Ousmane dafa jooy mu ne ko loo jooy mu ne ko ngoro gi nekkul suma diggante yow te dañ mu ree ne ko Jibril a ngi taxaw ne yàlla ne naa la may umu kalsum ni ma la doon roqiya bu ma amoon fukki doom dinaa la ko may kenn kenn ñu dee ba ba ñu jeex wa uskuru dinaa jekkale téere bi dinaa tudd dinaa tagg ñeent ëllëg nabi goroy Moustapha ya ñëri ñeent Ababacar nabi ko may Ababacar may nabi jabar kan la ko may Aïssa ci juróom-ñaari atam dencal ko ko ñaari at muy juróom-ñeenti at mu jébbal ko ko xale bu ndaw la bi njool màkk di faatu ñu ngi ko ko joxee ne Medinatul Munawwara neuf ans la am nabi am fa onze onze plus neuf vingt ans bi nabi génn àddina ñaar fukki at ak ñaar la am te toog na fi ba am juróom benn fukki at ak ñett bokkul ak góor nekk waxuma la ak lal ay situ Ababakar may nabi jabar Omar may na bi jabar alxuraan ko dëggal li ma tuxarrimu ma alallaah laka tattaqi nabaat aswadik ñaar ñooñu la woon ah nabi yow nag dafa am ndaw suñu wax na fi set nekkoon taara taara ci yoon du am ay borom këram jamono bu bëggee waxtaan ak moom day mel ni mbubu mu denc fab ko sol ko sama turandoo na bee ko jur ma baraayit bii moom rek la xadijatu jurul yàlla mën a fay xadijatu bi ko na bii takk boobam nogoy la daa nañ ko ko ñaawale waaye doom yi na bi jur yëpp moo leen jur amul ak kenn doom ku dul moom moo jur Ruqiya jur Umu Kalsum jur Seynaba jur Fatimatu Fatima nee nañu moo gën ci doomi Rasulillah waaye moo ci gën di gune xale bu tuuti bi sërëm yooyu yëpp ko mag frèram yooyu yëpp ko mag téere yaa ngi laaj fu mu jaar nag ba gën ci li ne bi jur nit da ngeen di mën a bokk baay uute ndey mu gën la ñu ne ndey jee tax wala ngeen bokk ndey uute baay mu gën la ñu ne baay bee tax mais bokk ndey ak baay gën jigéen ñaar dina juróomi ci gën asitu bintu masahin mariama yaayu ishe adijatu aisatu fatimatu fatima nag afdalu nisaai alalamina fi ljanna mos na wax bàyyam na ko sanan bu ne nga tojom dëkk maye jaam yi maye njegemaar yi ama kuma rukkal laala ama kuma xambal taal bàyyi boo jekkootee dëkk jox ma sis ngune mu di ma dimbale ne bi na ko duma la jox kenn de rukkal laala sa bopp ndem moo fa xew del del del del xambal sa bopp taal ndem nga xew de liggéeyal sa jëkkër dénk naa la bi subhanallahi alhamdulillahi wa la ilaha illa allah wa la akbar xayru min adunya wa ma fiha ya fatima alam tardi an takuni sayyidata nisa alalamina fi aljanna doy la nga doon sang jigéen ñi àjjana yépp wa alaxira mu ne ko akay mu ne ko di rukkal sa bopp di demal sa bopp di roogal sa bopp téere yi dañuy wax ni su ñu trouvé ne Fatimatu te la jaar ba gën ñi mu bokkal lay bàyyi xëy yu bari wax nañ ko ci parce que dañu ne bàyyi ndaf di xalifa jëkkëram di xalifa mu jur doo ñaari doom bi di xalifa ñi si def mën nañoo am jëkkër mu di xalifa mais jotu ñuy jur ku mel ni Xasan ak Useyn jur ko Ali bin Abi Talib bi nga xam ne moom moom marat jël bahreeni yaltaqiyaani baynahuma ba shaqu la yaltaqiyaani nga xam ne yuxruju min uma lu'lu'u wal marjan ñu ne loolu bu doon loolu rek kon absatu mi Omar jur nabi doon jëkkëram di xalifa Omar def na loolu xalifa ay ay sëtu bàyyam xalifa la jëkkëram xalifa la jeex leen feneen li ñu mujjee turé daal mooy nit bu faatoo bu do sa doom faatoo te nga muñ dañuy xool yiw wa mu am keroog ba muy dee ñu versé la yiw lépp ci sa carnet nga boole sa carnet su du wàññil mandat boo deelee te muñ ko bu sa jabar dee te nga muñ yiw wa mu am ba muy dee dañ lay versé bu toll noonu ci sa carnet te du wàññi mosul bu sa jëkkër dee te nga muñ yiw wa mu am dañ koy versé ci sa carnet dañ koy versé ci sa carnet te du wàññi yoonam dara kon rasulullah di ay Fatima tuddee nañu def fab yiw wa boole ci gune bi am déet dina ko roxee tuddee nañu def fab yoon def ko ca bu mu ko sombagam dee nañu def fab yoon yokk na bi rey na ba bi mu dee dañu fab yoon yokk gune bi càmmiñam dañu wax xaasim dañu yokk yoom ci rasulullahi taahir dañu yokk yoom ci rasulullahi mu des fi nag moog na bi ku ci jëkk dee ñu fab ñu wiiril la la ca def mu nekk fekk rasulullahi nekk fekk rasulullahi ba na bi jikk koo dem àllaaxira ñetti baat ñetti weer la ko na bi jëkk bi ba njool naa ko tollu diggante daf ko xoo di wax ak moom mu siggi wax bi àggul na bi forcé ko mu sëggaat ñetti yoon ma ne ko lu tax may wax ak yow àggal ko ma ngay siggi yarewu ma la loon njool màkk ku yow la woon ba dajeeg yow ci yoon te mu xat mooy jëkk a wàcc su ngeen taxawee yaay jëkk a départ su ngeen di jàmm sant yaay jëkk a noppi su ngeen joxantee loxo yaay jëkk a rocc soo ko ne ma ne mu taataan la noppam bu tedd bi fekk da ngay soo siggi miñ du topp yëm si bi laa xadwin wala naalin ila iyadati lmaridi jalla wa ala mu ne ko papa day def bu ma sëggee di la déglu lu mel ne takkandeer timm bu ma sëggee du ma ko gis na bi jóg bëgg koo xool gisu ko mënu la jóg mu bër bëri mënu la jóg mu ne ko may ma loxo Fatimatu fab loxo yu tedd yooyu rof ko ci poqataani bàyyam dégg ko ne bi yër bunt bi muuñ na ko wax nga dëgg malaakal nootee làq ko ci bunt bi defaru ba mu dëgg ne ko bismillahi tafaddal malaaka lu seen tere moo ko ali zahirin jiita aw li raabidin mu ne li zahirin jiitu wa li raabidin in shiita da nga mën muy si wala da nga ma wax malaaka yëpp ñoo ngi fii seet si ma dénk ma seen bopp attaque yooyu caabi àjjana yi wékk na ko fa fekkal si ma fi ne ma bul ma fàtte yow tey laa la mos a gis da nga ma jël si wala da nga ma seet si mu ne ko dama la seet si ak yóbbuwaale la bu la neexee. ku ñu waxoon loolu ku dul na bi nga yàgg fi de bu la neexee.
31 décembre ba lay weesu la woon ca jumaay Ndakaaru noonu la El Hadji Ibrahima Sakho mu maam El Hadji Eliman Sakho mu tëngeej fanaane ba bëgg set ci guddi googu nga xam ne si la ñu tëjee programme yi journée culturelle islamique yi ñuy màggale Abul Abbas Cheikhina Ahmadou Tijani Chérif radiallahu taala anhu doomu Tijaan Chérif bi xutba la paan تاج العارف لا يويجي سودان إنيان صخر الكند شيخ تيجان مكتوم شيخ أمل فك شيخ كوين ينم دنيتا إنيان صخر الكند شيخ تيجان شيخ أمل فك شيخ كوين ينم دنيتا شيخ تيجان إنيان صخر الكند شيخ تيجان ca xamul fekk cheikh kuy ñañam du ñeeta di billaahi kuy sa taalibi buy door a jàpp sab yoon maqaamam waliyu lay am tali du jaaxaan waaw waaw maqaamam waliyu lay yor di billaahi gannaaw kaga laasim xëy liggéey waaw wallaay gannaaw kaga laasim xëy liggéey mbër ma ba faatoo def salawraat julli wasiifa jëf te wallaay danaa naana di xam waaja daal te naana moo waral ba ma jóg tey di sant aw taal ni mag tumb bi sax xel di dem ci kim paase te mboolem ku nu fi naw taxul di seen maay ba box boo mën a dem taaba bee ku nongoom ba mat sëg sëriñ ma kaay ñi na teen te wallaay te box boo mën a dem daaba fekk ndongoom bu mat sëg sëriñ kaay ñi na teen te billaay Omar Fuutil kuy moom ci réewi Soodaan ma am nga baaba ku doon moom ci giiri Baydaan ka nëbu haani mi juumoon dëggal na tiijaay rijaal yépp a ngi tey di fekk tiijaay Cheikh toñ ba bott bi riiral ba weesu mum naat gaañ yéemu ci yow naan la Cheikhu Tijaan Cherif yaa ñu raw dafa yombul ñu wax ko bay daane saxar baax yee tolloowul ak sunu
sa taalibe buy door a jàpp sa yoon maxaamam wàlliyu lay yor te li ñuy di caaxaan xale yi ci waawoon yi nag ñu ngi leen di ñaan bu soobee yàlla ñoom Abdoul Aziz ñoom Daw Góor ñoom Maodo Diop ñëpp man soor bu bés ba dañuy ñëw ca ubbi tëgg ca jumaay Dakar.
ñu wax la bés la taxaw boori metti waa faaso ci nekk ñaraw luy dox daa ba yéeg ci ay naaso bisub garoo ku la gis tàbbi aljanay boo walla yewit sa bët ku mu gis tàbbi aljanay boo bisub garoo ku la gis tàbbi jàpp saw yoon naqaama wànni lay am keli du caaxaan bisub garoo ku la gis tàbbi aljanay boo yewit sabat ku mu gis tàbbi aljanay boo bisul karoo ku la gis tàbbi aljanay yewit sabat ku mu gis tàbbi aljanay boo jaan sharif bisub karoo ku la gis tàbbi aljanay boo yewit sabat ku mu gis tàbbi aljanay boo ku la gis tàbbi aljanay boo yewit sabat ku mu gis tàbbi aljanay boo lu la